neex sutura xéwal bu yokk di yokk ba yëg ko te nag suñu émission li xew tey ba mu feggoon suñu ñaari doom yi dinaa noo def te saa rek kii maa ngi fi maa ngi si jàmm bu baax a baax di nuyu téléspectateurs yi safoo di seetaan Salam Vision di leen ne tay nag dañoo dem fi ñu ko juste waxtaanee li nga xamante ne mooy couvre-feu xam naa si kanam rek incha allah asalaamaaleykum tata waxee maa ngi leen di nuyu Zeynab maa ngi leen di ñooy fii ci Salam Vision day ñëw pour bi daal. Mhm. tey maa ngi lay delloo kàddu gi tata ko. xam ne couvre-feu la ñuy waxtaanee tey ah couvre-feu la nekk na benn benn affaire bu ñu jot doo ko jot bi ñu wax ci affaire couvre-feu yi. ñu respecté tamit dem beeg dikk bi ah, ah danaa la ci wax. ah danaa la koy wax bu dee couvre-feu bi day wax ne c'est une bonne chose quoi. lu baax la parce que déjà deux mille vingt dañ si jot a dund bëgguñu koo dund si deux mille vingt et un donc bu andiwaatee couvre-feu la moindre des choses à faire c'est tout simplement ñu respecter li nga xamante ne moom la président bi parce que déjà nit bu yëkkatee ay kàddu bu la jiitee ci dara yëkkati ay kàddu tegal la ko yow dara warul lu dul loo xamante ne moom war a accepté topp bu metti la kon li ci président wax ngal nañ leen ko di raxasu ba set di tax ma si jub si jëm lay ma jubal. taxawaam kay wax ni comme ni nga wax rek couvre-feu moom bu baax la moom. parce que buñ ko indiwaatee dina ne takk leen masque yoo xam ne tamit dañ koy tere tamit. couvre-feu ñëwee dinañ arranger yu parce que feebar bi wàññeeku. feebar bi jeex si jàmm ak salaam dem si jàmm ak salaam ñu nekkaat si ku nekk nekkaat say activité bañ a di kenn parce que feebar bi aussi tamit empêché nañu bëri tamit. waaw day empêché lu bëri bëri bëri bëri am na ñu bëri ñoo xam ne liggéeyatuñu. def nañ seen travail te am na ñoo xam ne tamit aussi ay père de famille lañ ñii ay mère de famille lañ dañuy liggéey pour dundal seen i njaboot comme ça comme comme comme le président wax rek. pour que nañ ko respecté respecté les mesures barrières di raxasoo. saabu ak mhm. utiliser sel mhm. dégg wàññi aussi tamit rassemblement yi aussi tamit surtout rassemblement dëgg fa la pour moom baax na parce que euh, arrangé wu sax parents yi arrangé wu parents yi ndax euh, boo toogee defoo dara dafa yor sa njaboot day metti du mhm. dëgg day dëgg la kon nañu respecté bu baax mesure barrière nañu ko respecté Sénégal bi dañoo bëgg xew ba couvre-feu bi amee woon deux mille vingt gis nga bi ñu defee effectivement jàpp nañ ne affaire bi jeex na oto yaa ngi fees nit ñi gën di jokkalante saafara gàllankoor bi bëri te boo léegi à l'intérieur ñoom ñu ngi ba léegi ku ci mel ni États-Unis Italie France ba léegi ñu feebar baa loolu nag xam naa ne ki la ki la président waxtaan ak ñu nekkal foofu moo war a xam naa couvre-feu bi parce que ñun ñi dañoo jàppoon ne ñun ñëpp ñu nañu ne bi amul sax te comme que feebar baa ci dëkk bi ñun ñii léegi ñu ciy jëlee fu bëri. couvre-feu bi nag entre Kees la ak Dakar. kon nga nañu respecté suñu mesure bi monsieur président wax ñu diw ci jeunes di saafoanteeg famille bi di leen di téye njaboot gi. dégg naa fi ñuy wax ba ci école bi mais ñëwaguñ ci école bi mais nañu gën a élèves ci moom nañ leen gën a jox leen teg leen ndox ak savon ak gel ñu koy diwoo ñoom élèves balaa ñu dëgg moo gën nañu moytu daal fagaru daal moo gën. faj faj fagaru moo gën faj dinañ naan. waaw li may dolliwaat mooy euh, comme comme. deux mille comme nga ko waxee sànq vingt jàll na. Mm-hmm. te tamit dafa nekkoon at boo xamante ne at bu métti la léegi loolu si boppam loolu la ñuy bañ si deux mille vingt et un léegi deux mille vingt et un dafa débuté déjà ñu taal couvre mm-hmm. léegi la moindre des choses à faire c'est de respecter ça. Mm-hmm. mais tamit doomu aadama si boppam bu ma ni Sénégalais kese mais doomu aadama mu naqaree di. yow imaginer nee nañ ngeen takk masque yi lan moo tax ñuy obligé nit ñuy takk masque bëccëg. parce que nee nañ couvre-feu la moo tax ñu koy def ay vingt et une heures jëm mm-hmm. pourquoi parce que heure boobu noonu ñëpp amatul droit génn. mais heure yi ñuy génn. Mm-hmm. moom lañ mën a obligé nit ñi ñu sol seen masque. parce que heure boobu ñu imagine Dakar actuellement dafa sedd. te nee virus bi si boppam si seddaay lay dund. Mm-hmm. instant tàngoor bi dañoo gisoon gars yi dañoo wàññeeku woon complètement mais seddaay bi daa ñëw mu gën a yokk. que ça que nit ñi di wax prési ci président wax na corona am na wala amul. Mm-hmm. ça reste à voir. Mm-hmm. mais si pas notre problème. Mm-hmm. ce qui est problème priorité suñu priorité mooy lan. tout simplement ñu xam ne bi euh, wér-gu-yaram. ça joue à notre santé. donc la moindre des choses daal c'est de respecter les mesures barrières mais tataaro xëy daa am lu ma jaaxal. mooy que couvre-feu bi mi nga xamante ne par exemple sama boulot bu dee la nuit laa koy comment est-ce que je vais faire Je vais perdre mon emploi. Wallahi. Et que, que sera, ou bien, quest que l'État va faire des, mm. des, gens qui travaillent la nuit Comme nous avons des fonctionnaires de naïvement bi waxuma sax ne liggéey parce que ñu bëri dañuy wax ne liggéey guddi si boppam. waaw dëgg la liggéey góor. waaw kon usine yi. mais je dis tout la. Hmm. liggéey bëccëg tamit liggéey góor la. Hmm. kon boobu bu ñu nekkee bi ñu naan couvre-feu hmm. de que ça démarre à vingt et une ba 6 heures du matin am na ñoo xamante ne ay parents ay parents lañu ñoom tamit ay 20 heures 21 heures yooyu noonu la liggéey. kon boobu bu tegee fii nii couvre-feu na gëstu ñooñu nga xamante ne ñoom ñooy. waaw gis ko mën a sax mais kon feebar bi duggaat na kon ñun Sénégalais yi ku ne xam nañu dañoo dañoo naïf feebar bu mu amee woon gëm nañ ñi gëmuñu lu leen neex lañ doon def demoon nañ ba ah taxatuñu sax masque léegi président dañ ne ba gis na léegi feebar baa ngi a yokk parce que seddaay dañoo nekk mais temps bi mu joxe wax dëgg fa ne yàlla boo xëyee dem 6 heures du matin. ak lépp loo mën di def rek boo xëyee ba def 6 di du matin ba 19 a faral di ngay man su ma doon su ñuy fanaan ñoom ñu waxtaan seen seen kaar bu ñu demee ñu waxtaan seen waa direction ne kon léegi couvre-feu dafa am dañu leen dugg ci léegi entre 8 heures ba kii ñu wàcc. 18 heures ñu wàcc 19 heures ñu wàcc mën nañu changé kon affaire bi temps bi dafa changé. ñu changé la même chose tamit. donc c'est ah. tout simplement que je lance mon cri de gueule au président. comme mm-hmm. moom moo fi tënk ah, couvre-feu bi et que ça démarre à 21h. Ah, ñi nga xamante ne ay parents d'élèves lañ. Mm-hmm, ñi nga xamante ne dañuy travailler la nuit. Mm-hmm. nga xam ne ñu changé ko def kese lañuy liggéey. ñoom tamit même bu ñu kii ba sax. même bu ñu euh, bañ a dégg sax ñoom. waaw c'est ça rek kese Mm-hmm. mais ñoom aussi tamit dañ leen war di sóoraale mm-hmm. aussi tamit mm-hmm. parce que ñoom liggéey boobu lañ am am ñoo xam ne aussi tamit ay père de famille lañ si ñoo xam ne xam nga yow père de famille sax ñuy liggéey guddi sax ah boo xoolee arrangé wu leen sax. si même bu fekkee même bu fekkee sax ne nekkuñu si en couvre-feu dafa leen arrangé leen ku sañoon teel a waat gis sañ bi sañ mais yow nga sañ boobu boo delloo waatal am na lu muy demee yow bu doo yàlla mun na xale bi day jàngi. bu vingt la rek laps de temps lay am yow kon nañ ñu xool daal nañ koy defee daal kon daal bi am na président ñu ngi lay ñaan nga xool société yi ñi nga xam ne ñuy ñu yóbbu leen di huit huit heures ba dix-huit dix-neuf heures ñu wàcc ñu wàcc élèves yi tamit a wàcc di ñibbi seen kër yi ñu teel a wàcc ñibbi tamit xool respecté ci wax parce yi da nga sànq bi may ñëw bis boo dugg dafa fees dell te xool ñu ngi di commencé couvre-feu Sénégal moom lañ noonu mënoo ko wax lu mu def mun a wax lu mu def Zeyna. doog ma la sax mais am na benn acte boo xamante ne président bi daawoon na ko def mooy que. bu imagine dañuy bi joxe. gis nga ko ñu ko wala ñu jot moom moom pour passer expert day am ci benn parce que par mairie par mairie la bi nekk Kër Massar wax ne am na ñoo xamante ne am nañ mais ñun suñu biir kër amuñu te ñun ñu ngi jege am na suñu chef de quartier bu ñu ko indilee affaire bi mm-hmm. daf ko yemale ci kii yi am ñu mu jox am ñu mu jox. waaw léegi président soo ko jox amuñu amuñu. président wala mooy lan. mais tamit il faut que président wala waaw mais xam ne amuñu. président wala moo xam ne lan moom daal. am na trois fois bi ñu ne wax dëgg fa ne yaa ñu gisuñu woon dara. kon kon loolu fi tëral moo fi tëral bu fër te kër bu fër balaay douze jours yi ñuy wax yàlla na jeex ba ñu delluwaat suñu activité yi tamit ñu respecté suñuy mesures barrières ak takk suñuy masques yi raxasoon gel nañu si dimbali tamit kon 12 jours la xëy na ñuy am mën na am nit ñi continuer seen liggéey am na ñoo xam ne mën na am mën nañu bañ a continuer seen liggéey ndax guddi gi daal duñ ko nangu di liggéey dañu wax na dëgg nga jàppaloo nga dimbale ci waaye askan bi ci affaire alimentation bi ñëpp jot ci ndax am nañ bu passé ñuy am nañ ñuy amoon ñu respecté ko daal kon yow yaa tëral sa loi ne couvre-feu nga jàpp ci rek yow président waaw daal tataarok yow man foofu dogguma la sax mais damay wax tout simplement que ne la faute n'est pas au président parce que président li ko war mooy génnee joxe. Mhm. nit ñi si boppam ñoo koy départager. Ah, mais la faute est à ceux qui. Mhm. ceux qui ont don ceux qui euh, ce que le président don mhm. et qui doivent distribuer. ñooñu ñoo yor si boppam euh, ñooñu la war a jox faute bi. bi pas au président président li ko war mooy que ne euh, kii président population bi lii la ñuy doy lii naa ko dajale jox ko jox. roqee wala jox euh, Seydou wala jox keneen ak keneen seddale mais ñooñu ñuy seddalee nañ ko seetaan bu baax a baax parce que jox ñi joxoo ñi loolu àq la àq bu rëy la jaral na ma sax man mi nga xamante ne man lañ jox ma ñaax te ñooñu am parce que Sénégal dañu dañu xoolal suñu boobu sonn fii dafa bëri ñu sonn sonn gis nga pauvreté bi fii dafa bëri dafa bëri dafa am ñoo xamante ne boo leen tegee pour rek xañ na leen seen seen àdduna ñi xam ñu ngi toog di xalaat lan la ñi xam ne ñuy liggéey surtout commercial yi tey bu ñu leen nee bu ñu xëyee huit heures balaa vingt et une nga kii yow ngay def sa livraison ba vingt et une def naa ne sama jaar moom day ma wàcc mais yàlla def na man arrêté naa commercial may may commercial ba bi moo xam ba ko Sénégal la affaire bi nekk na gëstu Sénégal ba pare ñun tamit ñun nit ñi tamit nañu xam ñun ñooy ñan tamit ñu fonk suñu bopp nga xew bi mu nekk ak ak neex moo xamante lu ñu dégg sax corona ñun loolu lañ ci am yaakaar sax bi douze jours yi ñu ciy wax yàlla nañ ko fi yàlla na fi jug ba bu nekk sa liggéey mhm. léegi nga gis nga xool utiliser daal masque yi mhm. utiliser gel yi. Mhm. lii mesure barrière daal ñu ko respecté daal. Mhm. surtout tamit Sénégal dafa am benn jiw bu muy mooy dañ koy jox euh, dañ koy jox ay kii comme dañ koy jox ay bagages yoo xam ne dafay bëgg ay lekk ak yooyu noonu mais ceeb bi day ñëw koy saboté. wala mbay mi laa mbay mi tout ça day ñëw ñu ne lii nii lee lañ ko defaree wala desitu nii. la mais buñ siy xool loolu yéen si li ko war daf na ko def mooy que lan mu ànd leen loo xamante ne da ngeen si satisfaire seen besoin le temps que couvre-feu bi jógee fii le temps que feebar ñu jógee fii léegi loolu buñ ko andee yéen jëfandikoo leen rek ngeen ngeen kii ngeen jàpp si loolu. ah man de loolu loolu gis naa man de man li ma gis wax dëgg fa ne yàlla li ma gis parce que dem naa suñu kër bu mag bi ma demee gis naa leen jox leen jiwu jox leen ceeb te ceeb normal lañ leen jox wax dëgg fa ne yàlla c'est que ñuy wax loolu la xëy na dafa dañ cee jotul moo tax mais ñu ci jot wax dëgg fa ne yu baax dañ leen jox jox nañ leen ay ceeb jox nañ leen ba ci ceeb bu ceeb bu dijji sax jox nañ leen ko mm-hmm. dem naa kàddu gis naa ñu jox leen ay jox nañ leen ceeb bu dijji bu baax même mm-hmm. am na ñu ci bëri ñoo xam ne jot nañ wax dëgg fa ne yàlla

waa Thiaré jot nañ mais dañoo xam ne banlieue mais banlieue bi ñu bëri jot nañ. Mhm. ñu bëri jot nañ mais ñi nga xam ne ñoo gën a xew ñoom ñooy sawar te ci yàlla dimbali nga am as tuut santee ko borom bi. nga mën dundal sa njaboot. santee ko yàlla bu baax yaa ngi lekk yaa ngi naan jóge wu ci gouvernement. man nag gaa yàlla ba leen boobu mbuur la ma fekk. Mhm. Mali mooy boo jógee ci boppam di dem yoonu Joal bi foofu la ma fekk. Mhm. sama cousine moo doon bind koo xamante ne ñooy. moo doon bind ñi nga xamante ne ñoo. ñoo war a am ñoo nekk si bi waaw war a am si kii mais affaire bi mu ñëwee ñëpp dañoo ñëw dañoo dem ba jot seen ci seen ceeb ak yooyu noonu mais bu ñu ñibbisee am na ñoo xam ne si biir kër gi si boppam benn cin lañ fay teg. cin benn gàll boo xamante ne benn cin lañ fay teg kay moom la mooy des choses moo gën a ngeen tegal ko saako ceeb ak yooyu noonu. Mm-hmm. mais imaginer ña fay sëy ñoom ñëpp ku kooku ku ne si boppam day day. day bëgg a moom daa daa war a am comme ni ñee am. waaye ñoom noonu la ñuy def cin bi ñuy teg si boppam si. mënoo ne bopp ne nga jox ko saako ceeb day métti boobu noonu la ñuy kii mais bu dee ñaari cin la comme ni kenn di amee noonu la yéen ñaari yéen a amee. parce que boo nee bopp bu ne. andi woon na ay bëri yu bëri day métti. xam ku nekk sa ay sax ndax yow boo jëlee deux jours kii jël deux jours. day bëgg kii am kii ku ne sa deux jours. da ngay bëgg am sa saako ceeb sa dugub. mais ñoom dañuy xool ne comme benn famille bi lañ dañ ko jox ñaar. man ñi ma gis dama gis ne kër bu nañ def fa ñaari saako ceeb gor fu suukar. meew ba kafe ma gis naa la meew ba kafe diwle na lépp. mais tey sama cin bi ñaata cin la ñuy teg si kër gi la ñuy laajte. ah ñaata cin waaw mais tey benn cin la de famille bi si boppam benn kii la. ñu jox la saako ceeb benn saako ceeb non non dañ lay jox comme ni ñuy jox ñee. Ah, dañ la koy jox mais le fait que ma ñëw fekk taaraq ya moom moo nekk aaw. Mm-hmm. man ma nekk ñaareel. kii nekk ñaareel wala ñu nekk ay wuju wuju pëccër kii nii mooy nekk mag bi de mais boo leen ñëwee jox ko ko man dinaa di sama bopp dinaa ne gànn ma la moo tax jox ko kii te man tamit maa ngi sama njaboot. kii mm-hmm. tamit dina réagir noonu la. Mm-hmm. boo xamante boo la. moo tax ngay wax li nga xamante ne ñoom ñooy distribuer ceeb mm-hmm. boo leen bindee nit ba mu ñëw da leen di expliquer carrément ne. cin bi si boppam la ñuy bind mais pas nit ñi la ñuy bind. parce que ku nekk da ngay bëgg déjà. waaw si saa bu ñu nee lii pour pour jëpp la rek. Mm-hmm. Sénégal dañuy jàpp ñoom ñëpp a war a am. ñëpp war nañu ñëpp sëy daal day yaakaar ne moom forcément daa war a am. ñëpp affaire mënul matale. Mm-hmm. ñii dañoo am ñi yàlla may ñi yàlla may may dafa mm-hmm. la ñuy njëkkee ñi nga xam ne yàlla mayu leen. foofu la ñuy njëkkee doog a ñëw ci ñi nga xam ne ñoo tane. ki tane nag moom na may ki nga xam ne xam ne amul man loolu laa doon wax à chaque fois nit ñi bu ñuy distribuer dañuy hmm. xool ñi nga xamante ne ñoo néew doole hmm. jox ñi nga xamante ni yàlla da leen may nii yàlla nga jox nga nga bi ñu kii sax boobu ñoom sax boobu nañ am benn expérience bi man gis nga wallaahi man ba ma déggee ne affaire bi man ma ci hmm. ne ak ma dajee ndeysaan ma bi suñu chef de bu baax boobu ma waxtaan nag moom néew doole lañ ko jox a ne ko seen yaay loolu baax na man man maa yàlla baax loolu baax na loolu moo gën nga xool ñi nga xam ne ñoom amuñu nga jox leen mais fekk ku riche mu wóor la kii doyee ko dara mën na ko gis di ko saraxe seen jour xam ne amuñu boo toogee ci mbedd bi ngay gis paa yoo xam ne dañuy yalwaan ku fa bu amee yalwaan kay dootoo leen da ngay gis pour pour nga xam ku ngeen dëkk mën leen jox sa sa doo ko xam parce que da nga ñu rek ci mbedd bi ñu taali te noonu lañu sonnee woon mais couvre-feu bi yàlla na ko suñu borom jëlee balaa yàgg da def fukki fan mu jóge fi balaa yàgg dara dara dara dara si barke si xam ne ñu tàggatoo. désolé naa tàggatoo. donc euh, mhm. c'était votre émission. ñuy rek di leen di leen ñaaxaat rek ñu ngeen respecté li nga xamante ni moom le président bi teg. Mhm. mooy couvre-feu beeg respecté masque yeeg tout ça parce que si si suñu weer gu yaram la bokk. Mhm. donc virus bi si boppam nee seddaay lay la kii la gën a kii waa mm-hmm. waa c'est donc xam ngeen ne ci seddaay la gën a kii donc respecté leen li nga xamante ne moom lañ fi teg di ñaanal tamit président bi mu bàyyi xel ñi nga xamante ne par vingt une comme ay guddi rek la liggéey mu gëstuwaat leen def li nga xamante ne mooy euh, aide daal seen ginnaaw donc di remercier ñëpp daal comme li ñu ciy waxee rek dañ respecté mesures yi baax ñu di que comme que sama doom fi xew pour que lañ doon waxtaanee di am di teg kontaan